Sénégal déglu leen ma maa ngi jàkkaarloog sama jigéen kii de mooy Seen Siri Lamine Gueye Njambek Mar Xaasim ak Seynabou fara cigi cawaan maare waaw ñeeño bala may saa Siri Lamino man de bëgg naa la xanaa xamuloo lamin mila la jël indi la ci kërëm ngay nawleem jikko ju rafet la ci taamu nit danga ko ndeysaan kuna sa jëkkër ji la yàlla booleel mooy sa waay séeri lamin laay wayal ay waay dafa nekk fii ci mbàkke bawal di bay waaram bëgg dëkkam di liggéeyi ndax dëkkam ndeysaan nit ku baax day bëgg réewam rawatina fa mu cosaanoo ñun Mbàkke Bawol la nii tiitaroo waaw waaw laa ilaaha illallaah eey ma way dama lay jox way laas bale huit mars maa ngi sargal jigéen yi Mbàkke Bawol fii ci théâtre de verdure bu ko kenn wuute Eh, waa El Vision Médias seede leen ma laa ilaaha illallaah man de duma woy baa doola Sëriñ Lamin Lamin xanaa xamuloo ni njàmbeek mar xaasim ak seen bu fara ci gi cawaan mar mooy maamam ak a mën a yor jigéen ñaareel xaritu jëkkëram Lamin nee na bi nga ñëwee ci kër gi ba léegi si dama bees fuuti gi ñaareel xamal ni xaritu jëkkër ja lay doon maa ngi jóge ci suba ci sama doomi yaay Moodu Fall kan làmp Fall menuiserie ñu def ak moom lu rafet a rafet man waa El Vision Média bi ñu fi jógee danoo ñëw ci sëriñ du Kebe tay sir kuutiiraay ma way la sëriñ Moodu Kebe Seex Moodu Fall Fall la doy may sabigi kumba faal daa bay maam seyna bu njaay maam farma yaasin daawur mi cimbul joojo ko du faali njaay bu ëllëgee bu ëllëgee Seex Ibra Faal mooy dimbali jaam ñi waa sama jigéen laa toogal nii nag toogaay bi rafet na la waaye dama lay bàyyi ak sista Zeyna euh, mu ñëw rek jàkkaarloog yow ndaxte ñun lii nga def nii ku koy def lañ mën a defal parce que ñun dëkk bi moo ñu ñor mbàkke moo ñu ñor képp kuy def luy suqali mbàkke rek lu ñuy def dañ la ciy boole ñëw ci yow ah, ànd koog yow ci anam ba mu gën a rafetee parce que lii nga def nii créer sa école coiffure salon de coiffure ci dëkk bi di jàngal xale yi pour ñu am métier bañ a taxawaalu bañ a sàcc bañ a fo bañ a yàq seen bopp loolu yaakaar naa président Macky Sall sax daa war a ñëw appui la monsieur le maire dalaa war a appui du dëgg ah, te nag ca kaw ca kanam rek dara jomb la lépp dina ñëw incha allah. Eh, Dame Mbaye xaal dama nan la beusa solo loxo rek mo daal ñoo fofu foofu allah li nga wéyal jongo bi neexna na dama nan salam rek ne patax rek eh, ci bi elvision media neena la ba tay duma ma ba tay ma ngi mbacke avec Zeyna la puissance ma toog ak jongo ma ji macha allah mu num defé balam rek ëpp mais dama ka xawa a mere ndax eh, ñaarel la ta man awala andu maa ngi musuma ak mom nuy na la ah fay naa la Zeyna li nga def jongo ma allah ngi pop di kontaan ci di contente ci émission bi macha allah parce que ñun mbacke lañu am te Mbàkke la ñuy tiitaroo kon ku ñëw fekk ñu Mbàkke rek dañuy bëgg ci yaw waaw macha allah man ko mel ni kii laa doon war ndax man damay bëgg ki nga xam ne day tiitaroo fi nga xam ne moo nekk dëkkam ñu ñëw fekk la nga toog macha allah amul benn journée boo xam ne rek euh, journée wu nga ko sa biir euh, salon bi ñu fekk la nga ay xale macha allah ñu fekk fi ay affaires yu bëri bëri euh, lan ngay sentir ci bés bi tey nga xam ne waa El média sees nañ la sa góor sa xarit dambay xaal la. waa sama góor sama xarit mën naa ne sama ñaari góor sama ñaari xarit sax parce que euh, lu rafet rek la ñu bëgg ci Mbàkke ñoom saaboo leen gisee ci yooyu la ñuy dox ci la ñuy wax ci seen jëfin seen defin lépp Mbàkke la moo tax saa bu ñu jugee rek jëm ci Mbàkke man dama ciy ànd ak ñoom li tax dama ciy ànd ak ñoom dañuy nekk doomu Mbàkke ñun te yu bëree bëri dañuy wax naan Mbàkke nii wala Mbàkke naa mais ñun ca kanam la ñu jëm ndax ñun nammuñu dara ci li ñuy liggéey macha allah bëgg nañ ko man nañ ko respecté nañ ko te wóolu nañ suñu bopp kon ñun wóoluwuñu lu dul Mbàkke kon Mbàkke la ñuy tiitaroo est-ce que xam nga ne ñaareel bi dafa wóol boppam mais ba yóbboo mu takk ay procès ay ay daan rek te xam ne dinaa ko mbëkk ay bañam wadd <laughs> dama lay laaj euh, en tant jigéen nga nekk jigéen euh, macha allah nga am jom ci li ngay def euh, nga yor li nga xam ne mooy dafa naqaree yor muy ay xale tey su ma loolu doon laaj tey nan ngay dundee li nga xam ne maanaam mooy salon bi ana lan nga may wax waa waaw commencement bi damay sant sama yaay ba bi parce que lépp moom la di sant sama borom kër ndaxte comme li nga wax rek yor ay xale dafa metti mais moom a ci jàppale ndax ba dara dul dara moom la bi dara nekkee daraat moom laa gis kon kooku dama koy sant bu baax a baax a baax d'ailleurs yor ay xale metti na mettiwul mais nag xale yi boo leen miinalee seen bopp yow li nekk ci ñoom nga def ko ci xale yi du ñu am benn problème wax dëgg yàlla yor naa fi ay xale yu bëree bëri mën naa ne mën nañ bari nañ daal man nañ vingt ba trente jëm quarante. ba pare dama dégg sa salon bi dafa amaale li nga xam ne mooy maanaam muy école nga dajale ay ndaw pour ñu ñëw di liggéey. Mhm, waaw ndax euh, salon rek la woon waaye liñ naan yokku cere dolli ñeex ñu daal di ciy defaat benn phénomène bu bu doy neex xale Mbàkke parce que dañ fi doon ñëw di laaj salon de coiffure wala école de coiffure. Ah, aussi ñu ne loolu comme que ñun dañuy def innovation léegi nañ ci dugal loolu. ñu dugal ci école de coiffure école de coiffure bi tamit jàll lool macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndaxte dañu ko tuddee suñu waajur muy mama Loota affaire bi jàll torop macha allah mi ngi dox dëkk bi ñu ngi ñëw di di liggéey normal dëgg yàlla neex na torop ci man. Eh, di naan macha allah mama loota rek eh, yokkal ñaan macha allah mu daldi di bawan euh di la wax ne bëggoon na xam tamit eh, salon bi lan ak lan ngay def ngay def pedicure manicure def li nga xam ne mooy maanaam ay maquillage bëgg na da nga wax ma mèche bi lan lan nga si def. wa salon bi dañ ko tiji ngir doomu mbacke yi nga xam ne ñoo dëkk mbacke ak ñeneen yi nga xam ne ñu mbacke salon bi lepp lo xamanteni day beauté dañ ko fi def muy coiffure chignon haut chignon bas dañuy def tresse pose ongle pose Euh, que euh, teg greffage pellicule manucure genre de visage tout le loo xamante ni daal bu te jigéen la rek dañu koy def amul lenn lu ñu bàyyi lay solal ba nga nga am mariage wala nga am chat, wala nga am euh, lépp loo xamante ni daal boo fi ñëwee pour bëgg a defaru rek tout le bëgg a def rek xam nga ben daam baay daal def organisation bu baax nga ñëw ñu defaral la sa bopp ba nice macha allah nga dem jonga ma lool loolu ñun ñoo def. nee le 8 mars ni may ñëwé fi ci salon bi nga défar ma mu joggé fi ba Dakar ëpp na euh, ndax yow li ngay euh Mbacké rek la yam wala amna fenen fo xamné xam fay défaré comme exemple tay nit nek Europe na la dama bëgg nga ñawal mu prix dama bëgg nga defal ma li li est-ce que yaa dox ci yooyu. macha allah dañ ci am ay commande yu bari bari bari dañuy jaay greffage bi ñu ñawal la ka defaral la ko ba mu baax ñu envoyer la ko mu dem dañuy defar tamit ay. tat yoo xamante ni dañ koy def genre prix yoo xamante ni greffage lay doon wala mèche ñu defar ko ba mu rafet boo xamante ni day jël ñu yóbbu la ko nga takk ko mu yem si yow képp aussi dañuy def ay déplacement soo bëggee te nekk loo fi nekk xaw a sori tuuti fi ba ay Diourbel Thiès Kaolack tout dañ fay defari ngay wax woote ñu wax la prix bi ñu fexe ba juboo après ñu def déplacement ñëw defar si la ba mu naas. ndax prix bi seerul. non seerul xam nga ñun Touba lañ waa Kër Serigne Touba lañ dañuy def nu mu gën a nu mu gën a service rek te gën a baax ku ñëw daal di nga kontaan incha allah. ndax mën ngaa profité woo waale joxaale nit ñi numéro bi. bien sûr am nañ ñaari numéro am nañ 76 am naa 77 76 bi mooy 673 22 31 am na 78 114 94 51 mooy suñu ñaari ay numéro ku ñu woo di nga ñu jot. Euh, bëggoon naa xam tamit dara en tant que jigéen te ku nekk xam na maanaam jigéen boo booy def dara dafay metti euh, ndax dafa am koo xam ne dafa nekk sa ginnaaw muy sa jëkkër wala mu nekk sa mag wala mu nekk keneen keneen koo xam ne mu ngi lay jàppale ci li nga xam ne mooy métier bi ndax neex na wala neexul. waxoon naa la ko ci début bi Génjoora moo mooy lépp ginnaaw sama yaay bu jàllee Génjoora moo war a lépp ndax nee naa la liggéey dafa metti surtout maa jigéen nga war a yor kër war a yor ay doom war a yor njaboot famille ba ne ci kër ga. yëpp ñëw ci sa kanam baare la mais nga am ku la ci puus am ku la jàppale ki la jàppale mooy ki nga xam ne moo ma téye ba daanuwu ma parce que bu ko neexoon tey mu yoon ma këram ne ma doo bouger dangay toog ma dem liggéey andi mais defu ko de dafa ma bàyyi may liggéey fii dama fi fanaan deux jours wala trois jours mais du ci am benn problème du ne ma guddee ngaa wàcc du ne ma teel nga du ma def nga nàngam du ne ma def nga li mais loolu yëpp ci moom la parce que bu doxaloon neneen wala mu xoole ma neneen wala mu xool beneen bët wala mu visé ci li may am amaana du demee noonu mais xoolu ci lenn li mu xool mooy lu baax lu rafet luy continuer affaire bi parce que tollul woon fii bi ñu ñëw dañoo amoon benn magasin bu ndaw moo xamante ñu fay bi seerul léegi ñu dem ci ba ñaari magasin kon sant yàlla te bëgg nañu yokk bu a baax a baax te lépp moom la. kon métier bi kañ nga ci dugg. waa métier bi yàgg naa ci yàgguma ci sama jàng bi nag yàggul lool yàggul dara dara parce que mën naa ne ñaari at rek laa jàng mais bi ma ko ubbeeg léegi fii moo ngi am ay 4 yooyu ci la ay toll dëgg yàlla mais sant nañ bu baax a baax a baax bi ñu fi ñëw demeewul woon nii taroon na metti woon na mais am ku ma jàppale moo tax ma ba toll fii te ma jàppale mooy Guèye Ndiora Ndiambeg maar xaasam ak Seynabou moom namul dara tax lu ma nekk ma nga ca kooku koy sant bu baax a baax a baax sant samay waajur aussi tamit ñoom lépp tamit ñoom la ndax bàyyi nañ ma ma jàng métier mën nañ ma ar arnaqué ci kër gi di ma loo ko fóotloo ko loo d'ailleurs sa jàngal nañu ma ko mais bàyyi nañ ma liggéey am xam-xam mën leen cee taral loolu sant yàlla la. macha allah yéen a ko déggandoo dégg ngeen soxna su baax si euh, lu mu wax euh, kon xam naa dañuy daal di dugg ci biir rek xool sa élèves yi euh, nuñ toogee ak lu ñuy def ci biir. Ah, bien cher tey moom xam nga ñun ndigal la ñuy wéyee ñun dañu nekk ci période proxaan te su proxaan jugee rek ñun ñëpp dañuy daal di jóg. daanaka sa jubluwuñu woon tey ngir xëy mais xam nga lu lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole amaana yéen ñi fiy ñëw ak dayoo bi ngeen toll ci ñun moo tax ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon ñëw mais tey réservoir ñu kenn pour dañuy liggéey dañuy réservoir pour nit ñi nga xam ne école bi rek moom mooy liggéey mais salon bi moom tey liggéeyul. waaw kon nañ daal doxantu rekk xool élèves yi nekk ci biir. les élèves yi ñoo fi nekk. ñii ay première année lañ parce que bi mu tijjee ba léegi yàggul ñu toll ci ñaari weer kon xam nga loolu yàggul ñu nekk daa nekk ci début bi nga xamante ni mooy jàngale mi du sori lool kii mu ngi def euh, treize waaw te daa nekk yàggu fii mën naa ne trois jours quatre jour la fi door am xam nga loolu diirewul te macha allah sant yàlla bu baax a baax waaw. ñu daal di doxantuwaat rek xool bu xam. kii mi def ni voilà kii tamit mu ngi fi am ay un mois yooyu yàggu fi léegi moom sosom fi lay toll pour l'instant ndax dañuy suur bu nekk ak liñ lay jàngal mais tey dañu tolloo ak jour sosom ñoom ñuy def sosom pour l'instant ci lañ toll nii nii ñoom yàgguñu fi dañu fi am daanaka un an un mois xam nga loolu diiréwul bu yàgg au moins ku mën a def si sosom yu yu normal yi loolu loolu baax na loolu yombul. Mhm. macha allah waaw ba tey tamit euh, ñii ci lañ bokk ci ñi nga xamante ne un mois lañ fi am ba léegi parce que li ma la wax rek école bi mu mujjee ak léegi yàggul loolu moom moo tax daanaka formé wuñu agaguñ ci ay coiffure agaguñ ci ay yi nga xamante ni moom moo gën a sori dañu yam ci fi nga xamante ni moom mooy début bi ñu jàngal leen létt ba seen loxo miin létt ba pare ñu soog leen jàngal ay coiffure ay maquillage ay pose ongle pose parce que loolu mooy terminaison bi. ndax yooyu tamit ci la bokk mais létt tamit dafa bokk ci liggéey bi te nit ñi yitte woon nañ ko lool lool lool moo tax dañ leen koy jàngal ba ñu mokkal ko tey nag di bisu sosam moo tax nga yem ci tey mais tout la ñuy def ndax jour bu nekk ak li ñu leen di jàngal loolu. macha allah comme ni mu ko waxee rek nit tëbul tëb rek dox balaa ngay dox di nga def li nga xam ne mooy maanaam toog boo toogee nga daal di raam boo raamee daal di jóg daal di dox ndànk daal di dox say soxla euh, nan ngay dundeek élèves yi euh, bëgg naa xam école bi nan lay demee. ndax ñoom seen formation bi 3 mois la wala 6 mois la wala 1 an la. waaw école bi am na 1 an la am na 2 ans am na 3 ans yaay xool bu la ci neex rek ak nu la neexee doxalee la la noonu te tan ñi nga xam dañuy jël 1 an bi mooy ñi nga xam ne xaw nañu man ba mu bëgg ay coiffure ay chignon ay yeneen yu xaw a sori ñoo ñooy jël 1 an bi am na tamit deux deux ans bi aussi tamit même noonu la ñi nga xam ne dañu bëgg jàng ba seen loxo gën a mokk gën a mokk ba tey it am nañu ko ci bëgg ñi nga xamante ni dañu bëgg trois ans bi aussi tamit ba tey noonu lay demee kenn ku nekk daal ni nga ko bëggee ak ni nga ko sentiree noonu la fay demee élèves yi nag awma ak ñoom benn euh, problème wax dëgg yàlla am parce que dañuy liggéey si heure di wàcc heure di def ni ma ko bëggee te loolu rek daanaka mooy réglement yi leneen loo si def lu loolu dañu lay interdit bi bëgguñu aussi nga fiy ñëw andi loo fi blouse bëgguñu ngay tardé tardé yu bëri bëgguñu fi wuy téléphone bëgguñu fi nit di la seet bëgguñu fi benn bruit lu dul liggéey daal intéressé wuñu fi leneen loo fi indi lu dul liggéey boobu dañuy séparé wu ak jaww ak bu ñu la digalee nag nga nga bañ après ñu mën a neexoo man ak yow mais lu dul loolu rek amuñu problème macha allah yéen a ko déggoon du mu ko waxee ndaw euh, bëggoon naa xam tam pay euh, paiement bi nan lay doxee ak ñoom. Mhm. waa inscription bi pour l'instant xam nga ñun nee nañ la borom xiiwal lañ parce que ñun Touba lañ dëkk waa Kër Serigne moom dañ koy yombal ba mu yomb bu fekkee ne da nga bëgg a def euh, un an bi ngi ci 30 000 fin du bu nekk nga fay 10 000 francs bu fekkee da nga bëgg deux ans bi inscription bi mi ngi nekk ci 15 000 francs fin du bu nekk nga fay 5 000 bu fekkee ne danga nga bëgg 300 bi inscription bi mi ngi nekk 10 000 francs fin bu nekk nga fay 5 boo jàngee ba mokkal ba 3 ans yi wala 1 an yi wala 2 ans yi mat dañu lay jox sa diplôme jébbal la ko nga daal di dem jàng métier beneen wala nga dem liggéey ci bu baax a baax. Euh, lan ngay tàggatoo ak sa client yi nga xam ne ñoom ñoo la si tànn ñi nga xam ne yaa da leen di faral di defal euh, chaque jour. Mhm. waaw sama client yi comme li ma la wax rek. Mm, daanaka poroxaan bi moo tax mais bu fekkul woon poroxaan bi kon fii day wàcc ndax ñun macha allah ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax ci suñu liggéey ndax doyloo nañu ko te liggéey ba doyloo nañu suñu ay client tamit wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu ci ñun lu ñu man ci ñoom mais ñoom it ñu ngi góorlu ci ñun ndax amuñu benn problème du ñu teggi du ñu wax lu bon du ñu def lu bon ñun tamit lépp lu ñu bëgg rek dañ leen koy defal ndax client moom moom ki nga xamante ni buy liggéey si moom moom borom dafay ñëw li mu bëgg ñu defal ko ko ci anam bu ko neexee bu ko naqaree dañ lay dindi defal la leneen ñu bëgg ak yow rek ba keroog ngay pare après ñu di bànneexu ak yow jox la suñu carte visite pour ëllëg boo gisee keneen ko bëgg rek ngeen di ko fi. macha allah nee naa la man du ma fiy ñëwee rek le 8 mars rek ëpp na euh, lan ngay tàggatoo tàggatool. waaw tàggatoo bi comme ni ma la koy waxee rek ginnaaw yàlla maa ngi euh, sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur sant sama borom kan sant Serigne Saliou Mbacké moom nga xam ne moom laa doyloo ñepp mom lañu ma xamé waaw di sant ñi nga xamanteni ñom ñoy sama ay élève ci biir salon bi di nga xamanteni di sant ñi nga xamanteni sama élève ci biir école bi ndax ñom ñepp ño bokk yam ci man élève bi ak élève bi ñom ñepp ben lañu kenn mënu leena xajalé eh, di sant sama ay xarit yi nga xamanteni ñom ño ñew ngir man di fi ñëw di fi defarloo doyloo ma aussi sant sama ay mbokk yépp ci sant sama ay mbokk borom kër di sant tout du ma lim su ma limee damay juum di sant dàmbay xal la mais nga xam ne macha allah lépp moom la nit ku baax la nit ku rafet xol la mbàkke tamit lay sagoo naar gay aussi noonu di sama mag bu baax koo xamante ni sama lépp la fait lu xew rek day ñew expliquer ma dama na nangam ak nangam ndax bëgg nangam na intéressé wu nga ci ma ko amul problème yow lo bëgg man bëgg na ko parce que yow kon ko mbacké nga am man mbacké la am si lo lay doy lo, ci yow laa sukkandiku lepp lo gis ci lu bax rek nga defal ma loolu macha allah a ko no gis nga tamit soxna si ah ñaaral bi tay li nga xamne wax na ko dambay xaale nee naa le 8 mars to ko defal ni ma lay mbeuke ci kër aduna rek ëpp na xam nga lu ma lay dambay xal ni la lay def